ku doon laajte faali ngooy yegsi na dëgg la képp kuñ fi doon jiiñ borom jaaro bi nekke doonoo ko dañ la doon naax ponkal maa ngi kookan la sëriñ du borom jaaro bu baax bi bu efficace bi jaaro bi nga xam ni boo ko takkee sa wërsëg yépp ay ubbeeku ñàkk tàggoog ak yow ba faw maa la ko wax sëriñ moodu borom jaaro bu baax bi Sénégal xam nañ ko de waaye diaspora bi moom rek la waxtaanee maa la ko wax ki rasulilaay sëriñ moodu borom jaaro bu baax bi listixaar ak seet moo ci toog day tàmbar say mbir te moom la wax jàppal bayre bu kenn dut naa table mag ñi xam nañ ko ndax moom rek la ñuy jëflanteel ak bayre boo munti xalaat mu ngeek moom ay nomba kéemaan nomba yoo xam ni kaaraange moo ci gaaw ay nomba yoo xam ni boo ko takkee sa ndigg lépp lu la nar a dal sa yaram da koy sentir assurance la lii di nopp bokk na si ay mëninam képp koo bëgg ba yaakaar ni mënoo see jot bul hésiter seet si ko gaaw yow mi bëgg tukki wala nga nekk Europe bëgg a ñibbis wala nga am jafe-jafe kayit mbir dëgër lool ba neexal la seet gaaw Serigne Modou borom jaaro bi mu assuré la ko faiblesse sexuelle hémorroïde bu nëbbu ak bu làkku nit ki amel la bor bañ la kaa fay moo ci gaaw Serigne Modou borom jaaro bu baax bi fekk ko gaaw Dakar Kër Massar robinet Malika Montagne Touba Daaru Marnaan ancien garage Dakar bi Kaolack terrain Boustan wala nga woote ci 76 244 36 40 77 981 69 29 Serigne Modou borom jaaro bu baax dëgg dëgg yaay taalibe Serigne Saliou bi loolu mu am barke. ngi koy gis ah. Gora Diop Gora Diop Gora Diop ay Gora Ndiaye léegi ci ci Ndaye xale yi jàmbal bi ci jàmba Fora dem ci li maam jaar eh Fora dem ci sama ko moy jaar ma dese brasel ma dese brasel yow ñu ko xale ni yoon après boo waxee gaay dem grand pas bu ci baax amu brasel amu jàmbal ci sama fa ñam ànd ak moom sama brasel ya ko so waru wàññi brasel di ko ci ay brasel da wax ma ñu koy may waru ko def

day ñëw ay Siteu Aziz ay Siteu Siteu ngay ñëw yalmin baa oto baa ngi daw nànk nànk nànk nànk ay Siteu yalmin a feña li Nday Santefé la tudd. Nday sa xam-xam. màcc na ci wàllu ci wàllu oto de. Nday Santefé. daa mel ni sa Aziz. mais saa yi fii fi ngeen ñu bëgg a sànni nii moom bari nañ mën a gis am am Khalil Khalil ale bi la gën a yaatu waay ñu xool ko li moom jàmm la ndox bi suuf loolu combat on de waaw ñu nga noonu. démb yi ñu ko wóorul góor jigéen ñi mu àndal loo wóorul. bu laa bàyyi noonu Mame Diarra ak Coly Faye bu jaar seen bi wala

Seydou na ñëw nii Seydou. bu waaw saafara bu mu dugg mais ndox mi ñu naan la dugg bu benn saafara

C'est bon, c'est bon.

No, no, you can't no